fii ci gouvernance bu Louga lañ amalee CRD ngir waajal màggal Jumaadal Oula ñu gën ko xam ci màggal Mbàkke Kajoor gouverneur bu région bu Louga ànd koog mboolem chef de service yi ak comité d'organisation bu màggal Mbàkke Kajoor gi te Serigne Cheikh Thioro jiite ko càmbar nañ mboolem ponk yi nga xam ne dafa jëm ci màggal gi Serigne Cheikh Thioro Mbàkke ñëwaat na ci taarixu màggalu Mbàkke Kajoor. mi nga xam ni mooy ñetteel doomu Cheikhul Khadim moo ci gane woon muy bis boo xam ni Cheikh Saliou Mbacké moo waxal Cheikh Sidi Maxtaar nañu koy fàttaliku ndax bu njëkkoon ñi ngi daan fàttaliku bis bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara génnee àddina gouverneur bu région bu Louga Alioune Badara Mbeng ak mboolem chef de service yi kenn ko ci nekk jël na matuwaay yi nga xam ne war na ko jël ci màggal gi loole moom moo tax gouverneur dalal xel yi ne lépp dana yemb. ci taxawee nag mooy. ci wàllu kaaraange wax naa ko fi léegi nañ fexe ba renforcer kaaraange gi waroon am ci biir dëkk ba. nañ fexe aussi set ak setal ñu gën ko renforcer ci dëkk bi danañ fexe ba aussi làmp yi doy. ngir éviter ñàkkum ndox mi ci màggal Mbàkke Kajoor am na forage boo xam ne ñu ngi ko doon liggéey noppi na forage boobu sax gouverneur mi ngi xam ne daañu ko ubbi ngir ndox mi du manqué benn yoon. forage bi pare na ba réceptionné nañ danañu fexe ba. ñu ubbi ko ci fan yii di ñëw duñu xaar sax ma maggal gi ñëw dama doon woow léegi directeur PUDC mënuma ko jot nañ fexe ba forage bi ñu ubbi ko parce que nee nañ ma ndox mu neex la ñu ubbi ko en attendant lépp lu ñuy régler par la suite ci ay procédure ñu régler ko comité d'organisation màggal Mbàkke Kajoor bi nga xam ne Serigne Cheikh Thioro Mbacke moo ko jiite seen xel dal na bu baax ci mboole matuwaay yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko ñu dënmal màggal Mbàkke Kajoor gi mu war a doon le ca Mbàkke Kajoor